asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah jeudi 24 décembre 2020 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la xëy tey doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey xëtam mu njëkk boo bëggee dégg-dëgg fa mu xëy ñëw daal moo ci saison 2020 jàpp 2021 bi. ubbi ga daal fi mu nekk nii daaf mel ni tey ci la xëy ñëw mu mel ni ki nag fan yi yëngu-yëngu yi am ci làmb ji njàmbat laak wax ja daa mel ni ki daal mbir ya euh, mu ngi bëgg a ci noppi koo xam ne du nekkum tëx maanaam la olof naan baax na ci laax bu tàng parce que nag yëglikaay bi xamal nañu ne daal ministre bi nga xam ne moom moo ngar daajoo sport bi moom lañ ko dénk mooy rek ko muy li mu fas yéene def mooy daje ak ki nga xam ne moom lañ dénk làmb ji muy biraaseen yëglikaay bi nag xamal nañu ne daal loolu samedi lay am samedi 11 heures daal la fas yéene def loolu mel ni ki nag la ñu jëm daal mooy maanaam xool na ñuy def ba saison bi ñu mën koo ubbi ngir mbër yi mën a bëre loolu mooy li nga xam ne moom la na sunu làmb xëy tey wan ci xëtam mu njëkk mu mel ne ki nag ba tey mbir moomu buñ ca continuer yëg likaay bi ñëwaat na ca ci loo xam ne ni aw photo yanj la ci dajo ba nga xam ne amoon na Pikine te Boy Niang maanaam defan lu mel noonu mbër ya fekk sa ko ca mel ne ki nag moo xam promoteur yi wala li nga xam ne nii moom moo di mbër yi daal donte dañ leen a privé la nga xam ne moom mooy bëre baak mel ne ki noonu moo tax nag yëg likaay bi te ñu ngay def fa nga xam ne nii moom moo di wala boog dee daal mu ngay am te la leen di rey la leen maanaam du sax coronavirus xanaa kay mbëkk ma ca la ñu ne mel ni ki nag ka nga xam ne nii moom mooy président des promoteurs Pape Abdou Fall daal dana li muy conseil promoteurs yi daal maanaam ñu prudent maanaam daal ñu dal def ndànk daal xool bu baax a baax mbir yi na muy demee loolu la nu yëglikaay bi xëy tey wax mu mel ni ki ba tey bu nu continuer ci la nga xam ne ni moom moo di coow loolu ka nga xam ne nii nag moom mooy Alioune Tine di expert sénégalais ba nga xam ne nii mu nga nekk fa nga xam ne moom moo di ca lu ni la mu wax daal ne li nga xam ne nii moom moo di waa làmb ak seen coow li wala seen ñaxtu bi nga xam ne moom la ñu def fan yi moom la mu xamal état bi daal ñooñu dañ leen a war a déglu bàyyi xel bu baax a baax ca la nga xam ne nii ñu ngi koy dox di ko jàmbat ak di ko wax keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi dafa tey ñëw ci moom muy ki nga xam ne nii moo di Garga Mbossé moo xam ne daal dem na fa nga xam ne nag moo di ci réewum États-Unis la mu fas yéene nag moo di digganteem ak Sa Thiès ba ñuy coow ba tey daal donte combat ba nekk gul officiel daal maanaam daa mel ni moom loola bokk na ca la ko yóbbu maanaam daal moom la dem préparé ji ko yëglikaay bi ñëw na tey ba tey diñu wax lu mel ni ki noonu waaye ba tey dañuy desaat ci yëglikaay bi rek ak coowal li nga xam ne nii moo di làmb jaag ubbi gaag lañ ca war a def mel ni ki nag jax ba tey gis nañ ko ci biir sunu làmb la mu xam ne nag moom maanaam daal dina organiser làmb sans public jax daa jàpp ne loolu moom du sax kenn waru koo sax di ko xalaat Max Margan moom itam di ab manager nekk ca Lansar la mu xam ne daal ne na huis clos moom koy wax wala nga koy jéem a def ne na yow la nga bëgg mooy rey li nga xam ne nii moom moo di làmb ji mel ni ki manager tamit wax nañ de ndax mbay Abdoulaye Diallo yëglikaay bi ñëw na ci moom tamit moom mi nga xam ne tamit ab entraîneur la wala boog moom entraîneur yi daal ñoo wax mbay nag la mu xam ne daal ne na lii nga xam ne nii moo di saison bi daal lay réclamer ñu ubbi ko ma nga xam ne ni moom mooy re Boy Niang di ko coacher ba tey Pala Diop tamit mu ngay réclamer lu mel ni ki noonu maanaam ubbiteb làmb ja daal la xëy ñoom ñépp di ko coow leneen loo xam ne nii daal moo nga fa nga xam ne moo di ca Kaolack muy paraasu ka nga xam ne nii moo di Bira Sène mi jiite léegi làmbi a remplacer daa mel ni nag wàllum consultation ya maanaam daal seet ki nga xam ne moo koy remplacer yëglikaay bi xam nañu ne daal ci àjjuma suba ji nag ci lañ fa yéene nag tëj lu mel ni ki noonu maanaam kon daal boo bëggee dégg dëgg moom suba ci àjjuma ji daal ci la ñuy tëj liste ba nga xam ne ni moom mooy wàllum consultation yo di xool li nga xam ne nii moom mooy bokk ki war a jiite lambi Kaolack yëglikaay bi ñëw na ci ba tey bu nu continuer ba tey ak yëglikaay bi rek mel ni ki nag ki nga xam ne nii moom moo di ki nga xam ne nii wala boog le vingt cinq décembre deux mille deux le vingt cinq décembre deux mille vingt mel ni ki nag moom boo bëggee dégg dëgg sunu lam nañ diggante boobu ak tey fukki ak juróom-ñett la combat ba mu cay fàttaliku nag mooy ba amoon ci diggante Bombardier bu Mbour ak Mohamed Ndao Tyson bu Kaolack combat boo xam ne daal gaawoon na lool ci huit secondes daal daa mel ni ci mbir ya toll woon yëglikaay bi ñëw na tey ci ab fàttali xam ne mu nga amee woon fa nga xam ne moo doon ca Léopold Senghor mu nekkoon Abramas buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di ca record record moom wàllum wiklo bay la ñëw tey di ca wax mel ni ki nag la tax mënta nekk daal yëglikaay ba xëy na tey ñëw ci leneen loo xam ne nii ci wik la booba ba tey ca fa nga xam ne mu di recours jàk si moom mu ngi cay wax nee na loolu moom jarul sax a xalaat parce que nag lu impossible la loo xam ne daal lu mënta nekk la fusion fas écurie Ndakaaru ka nga xam ne nii nag nekkoon na fi entraîneur u écurie Fass di Serigne Ndiaye xëy na di ca wax ci recours nee na mën naa nekk waaye daal la ca teg loola nag mu nga xam mu nga fa nga xam ne nii moo di ca journal bi nga xam ne nii moom moo di record asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di bëgg di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaxu ci yéen ah. di wax nag tey moom ñu ngi ci le 24 décembre 24 décembre nag bu ñu ko waxee suñu xel fi muy dem moo di ci feetu Noël feetu Noël nag feet la boo xam ne nii ah suñu mbokk kere yi ñoo koy màggal mu tombeek ganeek àddina entre le 24 ba le 25 ganeek àddina Seydina Isa Isa ibnu Mariam comme ni ñu koy waxee si suñu mbokk chrétiens yi maanaam le Christ waaw defe naa ne loolu moo waral feetu li nga xam ne nii moom moo di 24 décembre jàpp ba 25 kon loolu ñu ci profité tey di ci nuyu suñu mbokku chrétiens yi nekk ci réew mi yépp yépp yépp waa jàngu bi ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di wax ne que ah Sénégal comme ni ñu ko waxee nekk na dëkk boo xam ne wax dëgg yàlla ci diggante ay diine problème amu amu fi rawatina nag suñu diggante suñu mbokk chrétiens yi parce que li ko waral mooy ñoo bokk réew mi te sénégalais wax dëgg yàlla dafa respecté moroomam bi ci des mooy mbokk gi nga xam ne dañ ko bokk muy deret ji parce que li ko waral mooy tey ku ne xam ne ne chrétiens man mii di wax ak yéen di Babacar am naa ay doomu baay yoo xam ne ay chrétien lañ ñu bokk yaa ngi dégg kon defe naa deret dañoo boole suuf si boole ñu ndox mi boole ñu di le diine ji doog a ñëw te defe naa itam lool su amee kon ñun ñëpp ñoo bokk nday bokk baay rek la ñuy ñaan yàlla daal lépp luñ ci ñaan ak fu ñu ko mën a ñaane yàlla na nekk mbégte nekk xéewal nekk lu nangu ba tax corona bi sa jaara fi dem loolu la ñaan di ñaanal suñu mbokku chrétien yëpp sama doom bàyyi sant joom nekk ca fu ñuy wax njamaan ca commune Ndondol maa leen ci nuyu ñoom ñëpp ñoom Pierre ak ñoom ñëpp maa ngi leen ciy nuyu parce que dama am ay mbokk yoo xam ne xulle ay chrétien lañ samay mbokk doomi baay ba tey di ci nuyu tamit koo xam ne nii ah suma xarit la di madame Diouf Louis Senghor moom itam ku ne xam ne ci Euh, foofu la bokk ñu ngi koy souhaiter bu baax a baax joyeux Noël di ko wax bépp chrétien daal képp ku mu mën a doon rek duñ la fàtte ñu ngi lay nuyu rawatina suma waa suma soppe bi Cédric Marceline Ndour moom tamit bokk ci di chrétien bokk ci fans club Babacar maa ngi koy nuyu bu ko wax di ko wax joyeux Noël ak David Luiz nekk ba Espagne ñoom ñëpp di ay mbokku chrétien waaye di suñu ay soppe waaw ba tey bu ñu continuer nag bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ci xëtam mu njëkk Matar Ba Mbira Sène la fa nekk nag mooy ouverture saison 2020 jàpp daal daa mel ni fi nekk nii samedi ab daje dina am ci diggante ministre bi yore sport réew mi ki yore làmb ji 11h loolu la ñu kay bi suñu làmb xëy tey wax la ko waral nag mooy coow li am fan yi parce que ku ne gis na ne mbër yi moom génn nañ di ñaxtu te dañoo décider parce que la jàpp mooy gars yi waruñu leen privé ñoom li ñu war def làmb nag rawatina mbër yi ñu privé leen loon moo tax nag fan yi wax ji am ba tax na daje boobu danañ daal boo sàgganee danañ ko def samedi 11h ngir xool nu ñuy def pour ouverture saison bi loolu nag su amee moo gën li ci am solo nag mooy ñu def rek comme ni ñu koy wax rek protocole sanitaire boo xam ne nii dina intéressé waa làmb intéressé ministre de de la santé ministre de l'intérieur ak ministre des sports ak waa làmb ji ñoo xool nu ñu koy def ba nga xam ne nii saison bi dina mën a démarrer mbër yi mën a bëri ku ne am loo yóbbu sa kër jàmm ne ñooy ñu xool tamit nu ñuy moytoo feebar bi ndax feebar moom loo ci mën a dégg des na ko moyu ndax fagaroo gën faju waaye nag feebar bu tëye dem itam xulle faw ñu xool nu ñuy def pour dëkk ak moom pour mën a continuer suñu activité ndax loolu moom mooy yëglekaay bi ñëw na ci koo xam ba tey Alioune mu ngay wax bu rado ngeen xamun ko fii bu baax a baax mu nekk oni ah moom nag la moo xam ne daal leen mbëri seen waxtu waa làmb sax la wax seen ñaxtu bi ñuy ñaxtu na fi il faut ñu déglu leen wax na dëgg ak njaboot comme li ma ko waxoon démb rek boo leen jiitee ay ñaxtu di ca bëri di jóge fu ne di jóge fu ne parce que gis nañu waa musique bi démb dégg nañu waa làmb ak ñeneen ak ñeneen kon li am mooy fi mu nekk nii dafay baax nag état bi déglu leen te yaakaar naa président Macky Sall ah xam na réew mi parce que fu ne dugg na fi ci réew mi bi mu soxlaa réew mi ci àll beeg fu gën a sori xam na li sénégalais yi di dund xam nañ li ñuy jànkonteel te fii la jànge masta jànge bitim réew ba xëy yàlla dogal mu jiitee fii réew mi kon defe naa tey lépp lu fi nit di ñaxtu rek war na mën a xam ne lii am na lu ca ne ba tax na defe naa loolu dina ci jéem a taxaw loolu la Alioune Tine wax tey ne nañ déglu gars yi ba tey bu ñu continuer fa nga xam ne nii moom moo di ci le 25 décembre 2002 le 25 décembre 2000 ah 20 muy 18 ans boo xam ne nii ci la kii di Bombardier daane woon Tyson maa ngi wax sax Léopold Senghor mais arène fële la woon Demba Diop woon combat bu deuxième combat bu ma nekkoon Léopold Senghor mel ni combat bi nag gaawoon na trop ndax kera baat tontu la juróom-ñetti seconde la diir ar bi dafa soufflé Bombardier gën ko xeex moom ba Tyson jël ko combat ba jeex waaw mu nekk tey heure bi da fekk ñu naan la suba ban grand combat mooy am le 25 décembre pour 8 janvier mu nekkoon événement yu mag ci làmb loolu nekkoon loo xam ne def fa lu raw la Bira defoon loolu la ñaan record ñëw na ci li nga xam ne nii moom moo di wa wàllum huis clos beeg yooyu am na ñu bëri ñu ci wax tey ca sunu lamb ak ah huis nag comme li ñu bëri wax rek defe naa olof nañu ñëpp wax ay dëgg te defe naa huis clos lamb moom gënalut kenn waaw xëy na nag bu fi sësee waaye daal bu ñu soñoon moom du am parce que bu keroogee bu neexee itam du neex lool lool te mën na am que organiser du ko arrangé ndax ay millions la génne def ko ci jàk si moom moo tax lool la ne d'accord ci tey d'accord ci ko fusion Fass écurie Ndakaaru Serigne Ndiaye mi nekkoon entraîneur écurie Fass na loolu war na mën a te bu nekkee jàpp na ne mën na nekk réussite moom loolu la gis waaw waaw loolu moom ñu ngi ko fi wax fan yi yépp waaw tey nag di leen nuyu di leen ziar di wax ne loolu moo moom mooy monté di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi suivre Equivox ak foo mën ne si àddina bi ñu ngi lay ñaanal jàmm ñu ngi lay ñaanal jàmm di wax ne amuñu seen fay di wax que ni Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm def ko ci àddina bi yépp di nuy suñu soppe yépp Rimka ko Touba Sandaga du ma ko fàtte ah waa Ndukumaan Couture ñoom tamit ca Maris du leen fàtte maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam Couture moom tamit maa ngi koy bëgg ñoo ñëpp di ay tëer yoo xam ne dañuy jàpp ci liggéey bi di nuyu Mohamed Dieng ak bu Lutte TV lii ma sol tey moo jox <laughs> booy Mohamed sama booy la maa koy bëggee bu baax a baax a baax ba di nuyu waa Lutte TV yépp rawatina suma seex ba suma xarit Lamine Seck ku le di ñaan jàmm Sénégal